ne yéen askanu senegal mooy bu ngeen ñu wóoloo ba dénkuñu li nga xam ne moo fi am te ñëpp xam ko mooy ku ñu dénk nga jël alalu réew mi yëpp damm say poos ak say poosu mbokk ak say poosu xarit rawale alal génne ko réew mi non seulement dina dakk waaye ku fi guuxoon di nga ko goxi ñoo ngi ci liggéey boobu te ci fan yu néew di ngeen gis résultat bi xam naa looloo tax sax ngeen gis yëngu yu temps yi ku ne di yooxu ku ne di yónnee ñu lay waxal waaye ma bëgg a dalal seen xel fii dara du fi yëngu ndax dal rek a fi am jàmm rek a fi am ñaareel bi waxoon nañ leen nii lii nga xam ne mooy la ñu yàlla wërsëgale ci alal lii nekk ci or lii nekk ci zircon lii nekk ci phosphate lii nekk ci pétrole lii nekk ci gaz ak yeneen ak yeneen ak li ne sax ci suuf si nga xam ne ñu ngi koy dagg di di joxe mu am ñenn rek ñu ko séddoo woon wala ñu dem lënkaloog ay waa bitim réew ci anam yoo xam ne baaxul ci réew mi ñu ne leen woon bu ñu ñëwee dinañ ko saytuwaat lu ci dul yoon ñu delloosi ko ma gaaral leen ne ñu nga ca loolu te ci fan yii di ñëw di ngeen gis liggéey giñ ciy liggéey